tey ñu fas leen yéene andil ma bu amati solo ti mooy wéyale dundal weeru koor sunu dundal weeru koor tey ñoo ngi koy sof ca fa ñu woon démb ci dimbalee maanaam al infaq fi sabilillahi ak saraxe ak bégal ab jullit rawatina euh, jirim wala miskiin wala faqir te yemoon ci fi Sëriñ Tuubaa di waxee saraxe ak dimbalee ni muy diisalee misaan maanaam mm, balance yi nga xam ci la ñuy peese jëfi jaam bi ëllëg yowmal qiyaam ñu andi ci ñaari xisa yu ama am solo yoo xam ne nii ak waar la jullit bu ko dégg dana la waar benn bi ku ñuy wax Ahmad ibn Miskin bokkoon ci taabiina yi euh, dafa doonoon ku ñàkkoon mook soxnaam ak doomam ba ñàkk ga sonal ko lool te ku baax la woon nag benn bis mu génn nag ne day jaayi këram ba wut courtier ngir jaayi kër ga ngir ay jafe-jafe ak i coono ak ñàkkub dund bi mu génnee di dox dajeeg sëriñam bu ñuy wax abu nasri asiyaat mu ne ko yow ahmadu bnu miskin foo jëm nii mu ne ko man de ci tànk yi jaay sama kër ci laa nekk ndax damaa nekk ci ay jafe-jafe yu dund ba awma lu ma dund dundalee sax sama njaboot abu nasri asiyaat daal di ko jox ñaari mburu yum yoroon ne ko demal nga jox ko njaboot ga ñu xéewloo ko te nga toog bàyyi noonu bañ a jaay kër ga yàlla baax na bi mu ne wëriñ di dem dajeeg soxna si woom mat benn xale ak jirim bu xiif lool bu gën a sonn gën a sonn doomam bi mu nuyoog soxna si xale bi di xool ñaari mburu yi ahmadul miskin yor rek mu gi soxna si daal ne ko moom dafa mel ni sa mburu yi nga yor moom la bëgg ndax dafa ëpp dafa xiif lool ba xiif bi jéggi dayo ahmadul miskin daal jël ñaari mburu ya jox ko xale ba xale ba nag bég lool ba ay ronqañam di tuur ahmadul miskina daal di jaaxlan daal na man léegi fan laa jëm nag fu ma jëm kër ga moom mënuma faa dellu ndax awuma lu ma leen jox ñu dundee ko mu dajawaat ak sëriñam boobee muy abu nasr asiyaat mu ne ko waaw yow ahmadul miskina ma defoon na dem nga mu ne ko déeréet ñaari mburu yag ma joxoon de damaa dajee ku ma ko gën a soxla ma jox ko ko te yàlla rek tax mu ne ko ndax gis nga ña seet sa kër yëg nga ko mu ne ko déeréet mu ne ko am na ñu la fay seet ba demee fekk ñu jógee Cham yor alal ju bari jox xam ne kenn xamul nu mu toll ne ko sa jur moo fa nekkoon daan yaxantu bàyyi ko fa ñuy war doomam ba xam ne yaa ngi fii ñu indi la ko mu jógee fa nag doon borom alal di dimbalee di def lu baax lu ne te ku ma noonu jaamu yàlla la. benn bis nag mu tëdd suñu borom wan ko bis penc ñuy peese jëf yi bi ñu agsee ci aw turam ñu daal di jël ay jëfam yu baax yépp def ci benn balance bi jël ay jëfam ay safaanam def ci ba ca des waaye lu baax la daal mënta fexe ba mu ñu mujj jaaxle ci lool mu tiit lool ci biir gént gi ñu ne waaw ana lim defoon lépp jeex na ñu ne déedéet nekk leen nis tuuti ñu gis benn waay buy ñëw gàddu ñaari mburu yam yam joxoon jirim ba daal koy teg ci balaasu aw yiwam nee na balance ba daal ne kékk waaye nag des na tuuti daanu wut ba àgg foofu nag mu tiit lool ndax amatu dara lu ko lu mën a daaneel balaasu aw yiwam te alxuraan moom fa amma man sax mawaasinuhu fa huwa fi ayshatin radiya la wax wa amma man xafat mawaasinuhu fa ummuhu hawiya nee na ñu ne lii rek la amoon ci aw yiw dem bay tëj projet bi am ku am ñu ne des na de ñu ne lu ci des nee na mu gis ñu andi jirim bam joxoon ñaari mburu ya ñu jël ronqañ ya nga xam ne nii moom la tuuroon ngir bég daal di koy sotti ca balance aw yiwam balance ba daal di daanu ba jeex mu daal di mucc foofu nag la daal di yeewoo la des ak dundam nag dafa yokk lépp lu baax lu mu daan def ak di dimbale miskin yi ak faqir yi ak jirim yi kon saraxe ak dimbale lu baax la beneen bi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon waaju baax joo xam ne nii dafa mënoon saraxe lool te tabe lool te baax lool waaye soxna sa ko yàlla dénkoon dafa nayoon lool ba lépp lu mu bëggaan jox sax da koy gàllankoor te daawul saraxe bu ko masaana battale ab saraxit du ko def ñoom ñaar bañ faatoo nag benn bis seen doom ju jigéen ji ñu fi bàyyi gént ñu nekk bis penc mu gis baayam ba nga xam dafa tabi woon daan dimbale bokk ci ñay séddale ndoxum kawsar ndoxum kawsara muy déggu kawsar boobu nga xam ne ni jullit ñëpp dañ ciy naan yàlla na ci yàlla boole muy ndox mu neex nee na mu koy séddale ci ay kaasi wurus nee na mu gis yaayam nekk ci ay xat-xat ci ay jafe-jafe nekk ci tàngaay wa mar lool xiif nekk ci njàqare nekk jahannama nee na mu daal dem way wayjuram wu góor daal ne ko yow de yaa ngi séddale te sama yaay nga fee nekk ci ay jafe-jafe ndax dooma ma jox benn kaas ma jox ko mu naan mu ne ko déedéet ndox mi ñi koy naan mooy ñi daan dimbali jirim yi ak miskin yi ak faqir yi ci àdduna ak ñi daan dimbali jullit ñi di leen bégal nee na ma delluwaat ci sama yaay gis mu nekk ci jafe-jafe yu gën a métti ma ñëwaat weneen yoon wax ko ko mu ne ma xanaa déggoo li ma la wax ndox mi sa yaay waru cee naan ndax moom daawul dimbali jirim yi ak miskin yi nee na ñetteelu yoon wi nag ma daal di ñëw këf ci kaas ji mu yor bëgg koo yëtti sama yaay am lu ma kar daal koy nangu dóor ma ci loxo nee na bi ma yeewoo sama loxo bi daal di paralysé fi mu ma dóor loxo bi nagam mënatuma koo yëngal nee na mu ñëw ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy nettali gént gi nii ma ko gisee yonante bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jël yet wam yoroon fekk yoroon na aw yet moom yonante bi daal ne ilaahi bi xaq si ya ruxya allati xakamat ya yadaha sun borom maa ngi lay ñaan ci barkeb gént gi mu gént nga wéral loxoom bi nee na daal ci dóor dokk ba mu yoroon sama loxo daal di wér kon ñaari gént yooyu yëpp li muy tegtale mooy def lu baax jëmee ko ci ñi ko aajo woo lu am solo la moo tax sëñ Tuubaa day wax ne tàbbal mbégte ci euh, ak aw ci xolu ab jullit euh, dara ëpp ko solo idxaalu xayrin wa sururin sabata ala xulubil muminina solo la kon nañ farlu bu baax te it bi sallallahu wax na ci benn hadis ne nee na ab jullit ku ko dogal rek ci weeru koor nga dogal ko donte da nga koo jox benn tàndarma bu mu dogee suñ borom dana la defal yiw wu toll ni kooram nga te du yàq ci moom aw yiwam dara ndax tabeek suñ borom moo toll noonu moo tax mu ne man fatara man fatara saa'iman kaana lahu mislu ajri eh, ghayra annahu la yanqusu min ajri as-saa'imi shay'a du wàññi ci aw yiwam dara kon nañ profito ci fan yi ñu toll muy ci weeru koor wi eh, di dimbale way aaja wooyu bu baax te xam ne ab denc la boo xam ne nii bu ëllëgee de ab not la boo xam ne boo ko nottee da nga rëccu lu taxoon bëriloo woo ko bu baax a baax képp ku la gisoon it ci àdduna nga daan def lu baax mu lay seetaan téye la mu am dana la ñee te boobaa jëf lu baax day weesu